dóor nañ ko bal manifestant yi réprimé na leen Sénégal bii. ñuy wax quatre vingt et quelques morts deux mille détenus politiques ñuy rey nit ñi publiquement en plein jour Macron ça permet non seulement di recevoir le président di ko dig poste mais de magnifier ni mu yoree réew mi j'ai vraiment pas apprécié rafetlu mu ko vraiment. rafetlu rafetlu mu posture Macron. il a mun nga ne Macron dafa sponsorisé woon répression bi. daf ci àndoon daal. Ah parce que Juan Branco porte na plainte deux officiers supérieurs français. yu mm. ñu détaché woon fii ministère de l' intérieur. Mm. jàpp ni ils ont été complices ci répression mooy ils ont fermé les yeux. Mm. parce que ñoom dañuy produire rapport. pays occidentaux yi. waruñu jaay arme bépp réew bu dul respecter les droits humains les libertés. xam nga loolu rapport yooyu saa yu ñëwee ñu gis ni France wala Allemagne wala États-Unis jaay nañ arme réew moo xam ne respecté les droits de l'homme société boobu sanction mun na tegu ci kawam des restrictions day am ci gouvernement bi mais France yi jaay nañu arme ñoo xam ne dañ doon abattre nit ñi en plein jour jël ay armes de guerre jox ko des nervis mhm. la France n'a pas joué son rôle beneen bi dafa ingéré wu beneen bi dafa jël camp. lan moo nekkoon son rôle. mooy rappeler le président Macky Sall à l'ordre su bañee mu yëkkati projet de loi ONU sanction financières yu jëm vers les anciens ténors du régime comme ni ñu koy defee yeneen réew Iran. jotewul dara ak France France mosu ko coloniser nguur gi président bi génn àddina rahimahullah hmm. manifestation am na ñu repère ñu réprimer manifestant yi occidentaux dugal projet de loi na dañ geler avoiru responsable ministère de la justice premier ministre gouverneur et autres gis nga ñu def ko Sénégal hmm, hmm. kon nga jàpp ne ñoo les relations stables huilées fluides entre la France l'Occident de manière générale ak la Sénégal ne pourront pas se faire avec Macron Macron bokkul ci futuru France Sénégal. kon relation bi yàqu na. ci ah, ci Macron ci Macron peut-être keneen ñëw fii. moom xanaa moom xanaa moom xanaa mu góor rek Macron moom xanaa mu jóge fi rek. mais dootul neex mu. il est maladroit. Mhm. il sait pas comment parler en langue diplomate. en fait Macron c'était une mauvaise nouvelle pour la France particulièrement nag en Afrique te bu ñu moytuwut guerre la leen jëmee ca Europe boobu. njëriñ ah Macron chaque jour il provoque la Russie chaque jour Sarkozy fàttali leen ko na leen vouloir. ah. maanaam fort xama nga paraître ni ñoom ils sont là ils défendent l'Ukraine <laughs> mais mais bu ñu moytuwut ci guute lañ ñëpp. la preuve xëyuñ bi si na s'il faut envoyé des troupes au sol en Ukraine ñoom danañ ko def. Mhm. bi mu ko waxee lan lendemain lan la euh, Russie répondre seen président daf leen autoriser ñu def ñu préparer dans un avenir proche des maanaam ay essais nucléaires maanaam euh, maanaam simuler ay frappe nucléaire à travers li ñuy wax mooy trident nucléaire mooy. mooy capacité terrestre aérien ak euh, maritime à travers leur sous-marin nucléaire et autres mais ça la Russie c'est la première puissance nucléaire au monde mm-hmm. <laughs> réew moomu pour maanaam pour wane ne yow yaay yow yaay guerrier ba da ko ko songu sànku di ah, moom ten waxuma la ko ko songu sànku ku ko jublu sànku Macron bu ko France mooy tudd fële leen jëmee mm-hmm. moo tax la preuve bi mu waxee pare loo gis ay homologues ñoo ko rappelé à l'ordre na ko saa yi génn ci li nga ne ñun yi nga ne nii buñ ci dugal donc c'est un maladroit mm-hmm. benn page sombre la ci France président yi ko précédé yëpp ñoo ko gën a mun diplomatie Sarkozy amoon na intelligence wu jaamu soxlaam Hollande c'était un maanaam un rôle protectionniste pluto mu gis nga mooy intervenir ay barxaan ak yooyu Sarkozy c'est euh, Chirac moom position paternelle la amoon. Mhm. nitu affection donc ñoo ñëpp c'était des gens yoo xam ne ils savait parler aux Africains. Mhm. mais Macron c'est un homme suffisant tuuti xam nga mhm. moo tax ci ay guute rek lañ jugal. ci ay guute rek. léegi nag man li ma gëm mooy relation yi ne pourront pas se faire avec Macron. d'accord bu génnoon. def comme si Macron li mu def defu ko. su boobaa Ousmane dafay xaw foo te Ousmane nag faux wul. d' accord euh, sa citation bi foo ci toll. citation bon. Adama Gaye doon la. yéen moo ko yëgal. ah mais ah, annoncé woon nañ ko de ah. waaw man yéen a moo ko yëgal. yéen presse bi Adama euh, journaliste Adama Gaye servir la citation. yéen presse bi. Hmm. presse en ligne bi yéen a ma yëgal citation bi. ba fi ma toll nii daal maa ngi ne. gisoo dara. déggoo ma la yéen presse yi. yéen convocation amul citation directe. yéen presse bi yéen a ma yëgal citation bi. mais lan mooy seen problème yow lu tax mu lu tax lan nga ko wax ba tax mu. du ma ci tontu mu mu lu tax doo ci tontu. maa ngi xaar citation bi. d' accord mais. no comment saa yi bul bul insister sax. no comment mais Sénégalais euh, ah, maa ngi xaar mu wax ma ko. no comment da nga ma si yëkkati ay kàddu jëmee ko ci. no comment. billaahi yéen a ma yëgal citation bi no comment. waaw ah, d'accord mais damay laaj est-ce que. da ngeen a ba may wax ci dara. waaw ma jot ko. waaw d'accord mais waxuma ci wax ci citation bi mais peut-être nga wax ci moom. je vais pas parler du sexe des anges quand même. non waxuma ay sexe ange de. dama ni li may laaj nii. non non non. ba ñu yónnee ma citation pour lii. ma door cee wax. dégg ma bëgg a pousser ma wax du sexe des anges. non non non mais tamit dama ni. dama ni bu fekkente ne yow bu fekkente ne yow nee nañ dañ lay dañ lay servir citation directe c'est parce que mas nga ko wax mën sa wax ci moom wala nga mas a def ci moom. mais mënuñu xëy suba rek ne euh, Adama Gaye daf la daf la servir citation de euh, citation directe. maa ngi xaar ba jot citation mën cee wax no comment. no comment. Cheikh man nag yaakaar naa doo delloo avance nag. mais lu officiel nan laa ciy waxee. ngay delloo nag man yaakaar naa. waaw mën na ne bon amul la ah, ah. amul problème lu amul moom mënuma caa wax. yaakaaroon naa ni guerrier gu quoi. Ah. dafa mel ni ma toog naan bu ma amee doom fii laay doxantoog moom ci corniche bi bu ñu rombee fii jëndi glace naa bàyyi ba am doom. waaw mais tamit man man ko xalaat. baal ba ma jot situation bi. Eh. Euh, di dossier ñu tamit euh, ñi ngi euh, sur la table du procureur de la République jëm ci li nga xamante ni moom moo di rapport Covid 19 ci 1000 milliards yi nga xamante ni yëkkati woon nañu ko le ministre de la justice Ousmane Diagne donc daal dinay déclenché li nga xamante ni moom moo di poursuite yi bu ko defee ñu commencé ñëpp ñi nga xamante ni tudd nañ leen ci wala laale nañ ci ñu mën a wuy ji fi nga xam xamante ni moom fa la mbaxane doone benn euh, di dossier nag dix ña foofu ca table procureur mu mel que ni euh, machine bi moom déclenché na la la la machine judiciaire. waaw loolu de mooy yoon ndax man yàgg naa ko wax. bi ma keex nguur gaa fi képp ku muy suivre mun nga ko témoigner dama yàgg wax ni ñi ñiñ topp fond Covid. Mm-hmm. man waxuma lay six milliards la ak un milliard la dem. Mm-hmm. un million fonds Covid ku ko lekk criminel nga waxuma la. waaw. criminel maanaam reykatu nit nga. xam nga lu tax. waaw pendant ce